Buenos Twins! Yes, hey! Est-ce que mu ngi baax? Hey! Araguinho, Araguinho, Araguinho, Araguinho, Araguinho, Araguinho, Araguinho, Araguinho. Booy jooy duma xam li ngay wax bàyyi lan la. ay du ma dem fii laay toogee ay waay sama boy yéen mat ngeen góore yow du ma dem ay waay fii laay fii laay toogee eh. fii laay toogee eh. Eh. alaaji see yirim yirim ngumba mala koddu mala doole ko mala koddu mala ay waay li nga bëgg ci Youssou Ndour lépp mën naa ko ah yow wér nga. eh da nga yow lëfal mooy lan li nga bëgg lépp ci Youssou Ndour dama la koy defal. mën na yow toogal waaye yow loolu tax ngay saa yow lépp la ma wax. moom daal li ma ko pro proposé. waaw lenn la waaw Youssou Ndour laa bëgg a suulanteel. waaw demanteeg moom bu mu saf saf. Hmm. waaw bàyyi ko ba ma ma ba pare bi def ko sama poos. waaw daal sa teel abaa. waaw waaw waaw. yàq aaram. yàq aar Youssou Ndour. def ko sama poos. sa juróom ñaari maam yëpp dëgër na këk këk buy dëgër na waaw waaw xoolal waa koñ bi kaay leen xool waa koñ bi